jërëjëf mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di am mbégte contentement ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax tey nag ñu ngi fii kër awo Banaya ah, fekk bi ki nga xam ne moo di Khady Ndiaye di xaritam di doom ndayam mu ñëw ànd ak moom ci li nga xam ne mooy ndog yi nga xam ne Awa mi ngi koy def muy première édition xarit Ndiaye maa ngi leen nuyu maa leen di fay di leen nuyu yéen ñëpp di leen jégalu ci weeru koor bi ah seen liggéey rafet na maa leen di suivre nee mhm. naa leen soirée bu baaxee yéen la mhm. vidéo bu baaxee yéen la dëgg la ñoo ngi leen di jégalu bu baax ak ah, ci jërëjëf ñu fekk la tey nga ñëw daal di teewal ki nga xam ne mën nañ ne sa xarit la sa doom day la muy Awa Banaya muy def première édition joxe ay ndogu. Mhm. tey euh, bi nga yëgee initiative bi nan la la waaw du ma bett ci moom parce que aw nit la ba pare alalam du ko booleeg nit ba pare fu mu nekk rek day partagé kon tamit bu defee lii tey dama koy ñëwal jàppale ko dimbali ko. Mhm. xam nga mu nekk nit ku baax franchement parler parce que lii nekkul c'est la première fois mu koy def. Mhm. awa mi budul lii sax këram boo fa ñëwee macha allah bu nekkee ñu ñëpp entre fii macha allah kon Sora dama koy ñaana rek gudd fan ak wér-gu-yaram ak li mu bëgg ci aaram bi yàlla na ko yàlla may. Mhm. mais bu ma la ñëw tuuti sa relation ak Awa Banaya. Ah, lan moo ko laal ak fan la tàmbalee. awa awa man moom lañ xamante 2009 ba tey ñi ngi ànd ak ñi xam dëgg dañ xam ne aar boolewuma ak aw Bambara. aw ñoo bokkoon benn lal bu ñu doon tëdd fanaan man ak moom man ak aw sim man ak aw mbapat man ak aw fu ne ci àddina tey nag yàlla moo ko fay xolam parce que liñ naan loo tarbi bi rek doo ko am mu tarbi bi li muy def man tam ma tarbi li may def mm. ñu bokk même métier mm. muy aar bi mm. bu jeejee ma jeejee mooy tax ñu gisante duñ gisante mais bu dara amul ma ak moom dañuy gisante aw ma ci moom sens interdit aw ma ci moom nëbbu aw ma ci moom dara franchement parler. Mhm. aw sama nit la te dañoo yàgg. Mhm. mais est du def benn effet nga nekk artiste moom tamit mu nekk artiste mhm. ah, euh, boo xam ne kenn ku ne artiste bu mu nekk ak bokkul. am loolu loolu loolu am. ñi xam ma ne la moo tax ma ne la ñi xam dëgg nañ xam ne man ak Awa du tey yàgg na. mais ñi xamul. ñi xamul xamuñu quoi parce que moom tamit samay fans dañ koy message ne ko doo ma jox numéro Khady Ndiaye. man ay fansam dañ may message ma ñoom doo ma jox numéro awa ma ko koy jox ñuy déggante dem nañ ba xam ne léegi damay live sax ñu ne maanaam awa tey feeñul ma ne leen mi ngi nii ñoom chaque jour matin midi soir ñooy nekk hmm. ñooy nekk man ak moom. Hmm. Hmm. mais caractère bi ci awa ñëwal ma ci sénégalais yi à chaque fois dañ koy wax awa dafa tëju awa dafa ñàkk kersa awa maanaam dafa xaw am lu mu mel. loolu yow boo ma ko dee ñëwal tuuti ndax yaa ko fréquenté ndax nee nga sa xarit la kon xam nga ko bu baax lan ma ci wax. waaw moom dafa dafa réserve dafa tëju parce que gis nga ci li nga nekk boo ci nekkee waxuñu la ku bul ku la nuyu bul ko fay mais am ci fulla am ci fayda ba tax na ki ngay liggéeyal mu jox la cër loolu ci la quoi mais nit ñi dañoo yem parce que ku ci nekk rek ak ni nga mel ak ku ci nekk rek ni ngay gisee mais awa franchement parler amul benn problème pour man quoi parce que man man du n'importe nit lay àndal parce que damaa naqari de rek man du n'importe nit moo may fréquenté aw mën naa def ak moom parce que xam naa ay qualité te des fois dañuy wax sax man ak moom ci ay bët dañoo yàgg wallaay azim waaw xëy na moom tamit loolu noonu viam la quoi mais man tamit mooy loolu xam nga rek mais en tant que xarit est-ce que loolu dina ko arrangé en 100% parce que artiste la dafa am ñu ko bëgg te fans yi ko bëgg tamit dañuy bëgg di saafonte ak moom mais bu tëjoo yenn tëjoo yi est-ce que loolu dina ko arrangé non du ko arrangé mu te xale la tamit te comme li ma la wax rek nee naa la ci li nga nekk boo ci nekkee da ngay am fulla mais tamit gis ku la bëgg man des fois damay toog nit woo ma ne ma dama laa bëgg damay coupé parce que damay ruus dama naan kii lan la war a bëgg ci man mais moom tamit bu ma taxawee moom ne ko nii ngay def nii ngay waxee nii nga defee parce que gis bëgg rek gis bëgg rek ko ki gis bëgg la amul ko quoi franchement waaw moo koy wax nag di ko conseil ne ko mi ngi ci aar bi foog mu muñ di tolloore ah, di déggante ak ñi di kaf di fodéré parce que loolu la opté loolu la du dëgg. Mhm. waaw loolu laa koy jox comme conseil. Mhm. mais ñëwal ci xuloo bi nga xam ne doon nañu ko wax ko fa njëkk Ndeye Ndiaye fekk ko fa euh, mais nee nañ jubóo te ñu bokk seen si sa xaw ma jeexal xaw ma daal sa xarit waaw wax nga ko xam soxo ne aw Banaya si soxo ñoo bokk ñoom ñaar man du ma ma wax lu ma gisul wala man du ma wax lu ma fekkewul moom Ndeye Ndiaye jotawuñu dara Ndeye Ndiaye bu waree ñëw ci awa day ñëw ci awa awa bu waree ñëw ci Ndeye Ndiaye day ñëw ci Ndeye Ndiaye man su ma waree ñëw ci ñoom ñaar damay ñëw amuñu benn xarma yàlla mosuñoo am problème hmm. xëy na nit ñi ñoo ciy nekk di wax ak yooyu noonu ba pare soo biis la soo biis foog mu am bruit ah, coow foofu moom coow man mii coow daf may dundal hmm. man coow ma sama bay man bu ma toogul deux jours coow maa nit du ma nit waaw te nit du ko xam ci man boo toogee deux jours te coowoo ne danga may neppal deux jours dañ may sotti soow damay ciow sak instant wallahi azim. foo toll dangay coow. damay ciow lan waral ngay ciow ciow lu bëri lool ah c'est parce que pa nga da ngay tok japp sa ñaambur gis ben fusa bu jóge fe ñew bëgg la tek dënn di la diriger man kenn duma diriger man moo tax ma képp ku may andal rek boo ma mënul comprendre do ànd ak man parce que dama nakar deret te damay doré da ngay doore loolu dinañ ci ñëw mais fokk ñu ñëw ci actualité bi ndax ndax ndax fi ndol ni nag réew mi yëngu na te yéen a ko yëngal yéen jigéen ñi gis nañ ne barki dem moo njaay xoloob jigéen mooy laayfante kenn ku ne di saaga sa morom waxante moom sa morom lu ñaaw muy diggante maam njaay sava ak mami cobra wax ju ñaaw ba àgg foo xam ne nii sax ah, yoon tegoon ah, àgg na ci ba woo leen ñoom ñaar ñëpp bi nga ko déggee wala bi nga ko seetaanee naka la def en tant que jigéen waa rafetlu ma ko parce que tey ku ci nekk rek sa doom ci internet bi tey muy mami muy maam Ndiaye ñoom ñëpp ay nit ñu baax lañ franchement parler ay nit ñu baax lañ amuñu benn problème kon seytaane moo ñëw rek mais ku ci nekk rek xol xolu mam Ndiaye ko mami Cobra dara newu ci seytaane moo bëri doole te ñu moytu TikTok parce que internet neex na trop mais du du kër mhm. parce que tey jii man mii su ma seetaanee internet su ma meree am lu ma métti damay dugg TikTok pour mën a nelaw kon nañ sóoraale te xam ne lii yëpp day jeex mhm. am mi ngi noonu. mais est ce que bàyyi ngeen xel yi influenceurs yi ak artistes yi nga xam ne yéen moom ngeen doon am ñu ngeen bëgg. est ce que tey war ngeen di xuloo ci li nga xam ne moo di internet bi parce que am na ñu leen bëgg te da ngeen leen di influencer bu ngeen taxawee di saagante wala ngeen di xuloo seen biir est ce que tey du ngeen influencer yenn xale yi. non man ko yor sama preuve ci TikTok ma ko génne. Hmm? man du ma xuloo ci internet. man su ma xamee nag maa tooñ dama yër sa ma lay woo. ne leen diw nee nga chaque yow yow boo da ngay xuloo. waaw mais du ma ko def ci internet bi. Ah. waaw mais du ma ko def ci internet bi ku yor sama preuve ci internet bi na ko génne mais man képp ku may ànd da nga may bàyyi xel. gaaw ma coow nag mais bu ma coowee kenn mënu maa mhm. mais du yoon ma nekk ci TikTok bi di wax lu ma métti ak lu ma nakari. mais ki ma amal problème dina xam ne man ak moom am nañ problème. Mhm. woo téléphone. wala ma ñëw sa kër. Mhm. bu ko def dama ñëw sa kër bu dee defuma ko dama ñëw sa kër. ñu réglé ko. pourquoi TikTok loo xam ne day jeex. sa connexion moo ci dem boo jëlul crédit doo seetaan TikTok. boo duggee TikTok yaa ngi xool vidéo yi rafet nga koy def di salanse di kaf ak nit ñi. Mhm. kon mën na rafet daal. Mhm. pour man mais showbiz bi ngeen ko jàppee est-ce que noonu la maanaam xeexante yàqante ak waxante lu bon. Mhm. est-ce tey loolu mooy avancé loo showbiz. non man gisuma loolu te aw ma xarit buy buy nekk ci aar bi di showbiz yi def naka su lu noonu côté boobu man xaw ma ci dara parce que man xaw ma lu bon du ma wax lu bon.

moom mujjee ñëw dëbb dëkk bi xale la mën na way bu woyee day fees gise fermé mu nekk nit ku baax muy Ibrahima Ibrahima mu nekk sama mag nekk sama papa nekk sama lépp kooku man ak moom aar boole wu ñu man ak Ibrahima bi ñuy xamante yàgg na boobu man xaw moon sax ne Ibrahima day way mu nekk nag sama lépp leen wax ne moom mii tey moo tax nit ñi xam ma moom moo tax nit ñi bëgg ma moom moo tax ku ma gis naw ma kon kooku aw ma fayam Ibrahima bu ma déggee ci naka sulu noonu sax daf may mere këram aw ma fa sens interdit heure bu ma neex laa fay dem ma koy ñaanal nag ci aram bi ci lu mu ci bëgg yàlla na ko yàlla defal ndax xam naa ne bés bu lu mu ko yàlla may da koy bokk ñun kon ñun amuñu ko dul moom barke Serigne Touba Mbacké nit ñi nag wax rek la ñuy def ndax fii ku tëgg am gi sa ferme di nga di nga fëgg sa dënn wax mais ku ñëw soirée naajo mu woyal la mu woyal la nga pare dem ñibbi génn naan soirée bi day am lii amu fa. fa amoon nekk ñun almadi zalato bi sax dañuy woo téléphone ñun almadi suñu yëf la dañ koy dëbb ba mu mel ni suluk bëgg te après koor bi da ngeen di gën te mën na way te am na doole. passe dëkk non ñëw na mi ngi Sénégal daal di noppaliku ci rek ñëw na xam nga xale la hmm. tamit dëgg neexul